ñu ngi lay ñaan bala nga sétane suñu vidéo nga dal di abonné notification bi pour vidéo bu dugg rek ngeen mën ci jot seen déformation bi leen di jox xibaar yu wër te wër manam nak euh, bi may wax naan Argentine day gañ ñu bari na ma nugum waxati nga te nga def té teguma ko ci am mara bu may ñaanal ak mara bu may seetal déedéet man niwuma ci yooyu ndax suñu suyuma naar bi bay dem ci mara yi ñu may xoral waye dama xamni monsieur dim jël ci coupe jël ko ci trophée dem ba ci palmarès am bëgg jeex mbii dernier coupe de monde mu ñëw ba fi dajeeg France gii di toog yàlla soo ko réewut noonu tey jii la yàlla wàccoog Messi eh damay ah tey jii la yàlla doon wàccoog Messi ci àdduna yamal xiyaam nag bu ñu demee Messi ak waxtaan foofa kenn ko de xanaa fi mu toll bu ci yàllaande ma ne ko Messi de xanaa fi ne bu ci yàllaande am na kenkaayu <laughs> ay kuba kii médaille. ma ne ko Messi de xanaa néegam ku fa dugg fi mu toll nii boo saa gën a tuut dana am coupe war rek dal la sa bopp bi ne laa xaañ ak léegi messi daal képp ku dogal nga war dem na nga sol casque moto yi ndax bari na coupe lool jël na trophée bu ne ah bañ na nga toog fa di kiit kii ji benn saaru coupe dal sa xaw a ni nii xaw a daggaale nangam yooyu la ko wax na leer messi ku dem néegam na nga sol casque moto. ma ma ma wax Macron Mbappé dugal nag Macron jóg di sibilé Macron jóg ak ñaawaay bek lel bi mel ni taati xale mu naan day laafax yi day tey buñ ko classé woon sax duñ gañ jënd Macron bu duggoon buñ defoon defoon jël Macron teg ci digg bi sax duñ gañ yàlla mooy wane ay mbiram ci 2022 bi xooleen coupe d'Afrique bi ñu koy jël ñëpp jàpp ne Sénégal du ko jël mu jël ko xooleen Messi dem na ba génne yaakaaram ci coupe bi ñëpp seen yaakaar yërëm yërëm rek lañ doon ñu dem ba tiiroo bii sa yàlla may ko yalla mo mel non bu xañ Messi tay mën nga ko wona xagn da danoo waccu mom ci aduna li la yalla desselon Messi legui nag li top moy neeg Messi mom kep ku fay demat diko set nga sol casque matu ndax bari nay coupe coupe dañi daanu wa ndax coupe bu bare jegee ni ben day daanu dal la sa bopp bi nga dag ak yoy lolou wour wa dene yok sen sécurité Messi yalla waccu nak mom ci aduna yamal xiyam la des moy Messi ñew taxaw yalla taxaw nu def règlement de compte bu Messi dee doli doli bu koy jégal jégal ko waye nu sarana sunu xol bi jël na lepp ci aduna kon je merci